Sénégal mbaa du doon fi insulteur légui day fay en tout cas ça a tout l'air de ndax ñi dàq saga mbaa di fi toj-toj Ñom la nguur gi di dalal pendant que ñeneen ñi ñom article 80 di peser ci sen kaw un paradoxe non Khaliphone Sall daanaka sax ñëpp xam nañ ko bi li activiste yàgg nañ koo xamee muy dénoncé nguuru Macky Sall yenn saa yi sax mu jël ay kàddu yu ñaaw teg ko ci kaw gouvernement bi te nëbbu ko woon kenn. kon ñeneen ñi toog di partage di wax ba may def loolu ñoom dañ muy opposition bi. dañ ko ci doon moom Pape Mbaye

voilà lu ma lu ma ak président de la république surprise ni reer waxtaan. loolu naa li nga ci li mhm. bi si réseaux sociaux bi mu ngi rafet président. wa gis nako de. Mhm. maa ngi lay féliciter ak ñepp ñi nga xam ñu ci japp def. amna solo amna sax ñu naan il fait preuve d'humanisme d'accord mais li ñu jaaxal moy pendant ce temps amna na ñeneen ñoo xamante article 80 mi ngi len top té ils ont dit moi. manipulation bi mu def ak diaboliser bi mu doon diaboliser jeunes yi yàlla daf ko nattu ci même guddi boobu non la toog ak. ki ma leen tegal léegi nii ci même guddi boobu la ñuy jël Cheikh Bara Dolly di ko yóbbu mandat de dépôt. nee nañ dafa wax Macky sàll day sàcc suuf. ñu ne dañ koy teg ci loolu mooy Cheikh Bara Dolly. xam nga yàlla mënoon naa bàyyi beneen jour mu toog ak euh, Californie wala beneen semaine mais ci même guddi gi. est-ce que Macky Sall ci àddunaam dina amaat jom wala mu amaat cran pour jàkkaarloog Sénégalais yi di waxati ci wàllu. saaga ci internet. wax nañu leen barki Dembo Ndiaye rek ni wu ñu benn wax bu ñaaw. li ñu mënta concevoir kay mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey biñ ciy nemmiku. wala bokk moom activiste bi li mu changé de cible moo tax mu gagné estime Macky Sall. ay nit di génn bàyyi say jabar di dem si ay ay ay salon de massage. lañ naan ren ñuy dénk sunu Sénégal. Kaliphone ne Sonko warul dem si ay euh, euh, fauteur de trouble ak ay defkatu usage de faux ngeen ne Kaliphone warul wax loolu. duma leen may ñaari salaamaaleykum. xam sax sama Facebook wala sama wala tant que dalle, c'est contre l'opposition c'est dans l'intérêt du gouvernement et tant que c'est contre le gouvernement opposition bi du ci une façon de faire la politique fiti ci Sénégal bu ñaaw lol, te du fi lu bees de nañu fi coowal Djibril Ngom ak Fatou Ndiaye Fouta Tampi. ñu gis ku def ñaawteef bu toll non. nga xam tay buñ koy wane dañ ko réciter comme un contre-exemple fi nga xam c'est ça doit être un lieu d'excellence ci yoon ñu recevoir ko fa c'est gênant moo tax ma man dama ci am gatché parce que lolu rafetul rafetul ci bi gis ci jëf ak lu ne donc man lu may naqaru la c'est que Sénégal fay am ben question de principe bu fi nek ñu koy xex war ko dindi pour des raisons de combine ou de combinaison politicienne ñu bayiko fi Laissez aller bi Miguel mi ngi jël ay proportions yu inquiétantes fi ci Sénégal deug deug dañuy encourager la culture de médiocrité suñu n'est pas jox des insulteurs publics de la République té doole di au sommet de l'État ñu xamni que le mal est très profond ñu ngi désacraliser institutions yi sans s'en rendre compte Mon président Macky Sall mbaru dafa faté ni mo fi attaqué won récemment rek réseaux sociaux yi joxoñ baramu tuma mafia katch katch bi ni ay lañu cette jeunesse malsaine comme on les appelle tay ñom la comme si de rien n'était seulement parce que les insultes ont changé de destinataire wala bon. en tout cas débat politique bi au Sénégal le niveau est très bas osons le dire Ben argument Amouti, ci lu dul saagante xastante waxante lu ñaaw ak xarabante ñenn ci presse bi tamit di ci contribuer bu baax malheureusement nag kañ rek la am une scène politique qui se respecte fu ay combat idéologique ak ay argument yu solide di am ngir rek ñu mën a ci ces guerre de bas étage li lañ leen lon, ci xibaaru bés bi fii ci Totemactu way leen rek de ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci actu ou à un petit site internet www.totemactu.com